aywa dëkkuwaay Tile Noo dañuy ñëw euh, des ci capital sénégalaise doxantu booru centre ville fekki fa yaay kumba euh, bari na fa ay mbedd yoo xam ne ñu leen di tuddee amaana doomi réew mi xamuñu leen ndax sax euh, seeni tur maanaam dafa yàgg wala boog lu ñu def ci histoire lu ci mën a am dañuy fekki yaay kumba foofu ci centre ville nuyu ko bàyyi ko ak yéen yaay kumba ñu ngi lay nuyu. Faye di nuyu ñi nga bokkal plateau bi di nuyu aussi euh, askan bi ñuy seetaan yéen a ngi seen rubrique de quoi est-il le tey ñu ngi fii Sandaga sooy xool euh, tali bi nga xam ne moom la ñu tuddee rue André Pétavin moo ñu fi indi léegi nag dañu bëggoon laaj rek ñi nga xamante ni si fii la ñuy liggéeyee wala sax ñi fi dëkk lan lañ xam si tuur bi kan lañ kan mooy André Pétavin lan moo waral ñu tuddee ko rue bi ak aussi ban année lañ ko ko tuddee jaafara topp ma. salaamaaleykum. papa ñu ngi lay nuyu. doom maa ngi leen di fay. tur bi. Mor Mati Sarr. papa dañ la ñëwoon rek euh, tey pour laaj la kan lan moo kan lañ tuddee rue bi sax ak aussi euh, lan moo waral ñu tuddee ko. engrais pate be nag damaa xamul góornóor la woon ndax ndax ay moroomam yëpp ay góornóor la ñu woon xaw ma tur wi. mais yow rue bi fi nga ko fekk. waaw 62 bi ma fi ñëwee di jënd ay lone tekk ñoom seen fi laa fekk riz bi boobaak léegi riz baa ngi fi turu jógeegu fi. merci beaucoup. asalaamaaleykum mu ngi lay nuyu. sama na nga soxna si. maa xëy ñu tur bi. man Chérif Diassé laa tudd. Chérif Diassé dañ doon laajte rek riz euh, bi nga xam ne engrais pétavin kan euh, fii mi ngi tudd 114 engrais pétavin benn ancien politicien la woon boo xamante ne tubaab la woon nit ku weex la woon donc moom lañ tuddee zone bi waaw waaw. merci beaucoup. waaw Diafara dañuy continuer rek suñu doxantu sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay. tur bi. Seydou Diallo. Seydou Diallo dañu doon laajte rek euh, rue André Pétavin wala avenue sax parce que wóoraguñu kan lañ ko tuddee. waa rue bi de André Pétavin lañ ko xamee ñun. bañ fi nekkee ba léegi André Pétavin bu ñuy joxe suñuy client indication dañ koy waxe boo ñooy rompé Sandaga nga ne André Pétavin. xam nga kuñ André Pétavin. non accord merci beaucoup grand jaafara dafa mel na ni nu jot a waxtaanal ñëpp euh, am na ñu ko si jot a xam am na kii tamit ñu waxal léegi nii moom nee na xamul kan mooy André Patavin léegi nag dañuy dem seeti suñu personne ressource moom moo ñu war a jox ay information lu leer ci kan mooy André Patavin bi nga xam ne moom la ñu tuddee rue bi léegi nag ñu ngi ak suñu personne ressource le professeur Mouhamadou Moustapha Sow muy professeur d'histoire politique contemporaine fac lettres ca université Cheikh Anta Diop moom nag la ñu nar a waxtaanal mu wax ñu kan mooy André Pétavin professeur ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. professeur laaj bi leer na rek la. kan mooy André Pétavin. Euh, André Pétavin homme politique sénégalais mais balaa muy nekk homme politique. dañuy fàttali que déjà 1929 la juddoo ci Roumanie mais doomu France te bu mu fa jógee dafa ñëw fii en tant que vétérinaire vétérinaire la woon loolu la doon liggéey après mu dugg tamit ci politique di représenter fii la MRP mooy parti politique bu tudde MRP le mouvement républicain populaire mu jóge MRP mu bokk ci ñi mettre en place bu parti politique bu ñu tuddee bloc populaire sénégalais. loolu moo waral bi ñu mettre en place le premier conseil de gouvernement du Sénégal en 1957 bi nga xamante ne Pierre Lamine tubaab bi moo ko jiite woon Mamadou jaar topp si ci gouvernement boobu gouvernement boobu di membre la woon moom André Pétavin moo nekkoon. le ministre de l'économie et des finances mooy donc mooy mooy njëkk a nekk fii ci Sénégal ministre de l'économie et des finances poste boobu dafa def ko occupé de 1957 ba 19 novembre 1962 euh, novembre 1962 ci la gouvernement Diaby defoon remaniement après moom mu jóge ci euh, ministre de l'économie et des finances ñu yóbbu ko ministre en charge des travaux publics te Valdiodio Ndiaye remplacé ko boo fàttali ko période boobu ñu ngi waajal ñu ngi dem ci crise décembre 1962 bi donc bi mu fa jógee mu nekk ministère de travaux publics après crise bi am en décembre 1962 euh, maanaam Senghor am victoire ci Dia bu ñu ko mënee waxee noonu euh, bu mu reconstitué waatee gouvernement bi moom Léopold Sédar Senghor da koy woowaat mu nekkaat ministre de l'économie et des finances alors et après loolu ci la nekk ministre de l'économie et des finance ba en 1964 la décédé en 1964 après bi mu décédé étant ministre de l'économie et des finance Jean-Baptiste Collin moo ko remplacé au poste de ministre de l'économie et des finances donc boo xoolee bu baax il est décédé à l'âge de 38 ans te boo tamit loo si mun a jàngat tubaab bi moo yoroon kom komu réew mi bi ñuy bi ñuy nekk indépendance. donc kooku mooy André Pétavin. xam naa loolu moo waral sengoor aussi aussitôt après bu mu décédé pour rendre ko hommage ñu tuddee ko avenue Pétavin euh, fii fii fii ci Dakar te te je pense que Saint-Louis tamit am na lycée bu ñu tudd lycée André Pétavin. merci beaucoup professeur ñu ngi lay remercier bu baax donc lii leen leen fi indiloon ci seen rubrique de quoi est-il le nom di leen jox di daje incha allah ba ëllëg ci beneen gox merci. merci beaucoup Ayaay Kumba Ndiaye ci gëstu bu am solo boobu pardon euh, Mortala André Pétavin ñuy jaajëfalaat également professeur Sow euh, suñu doyen ci euh, tasum xibaar gi très disponible ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax André Pétavin aussi digganteem ak Sénégal quand même de belles pages d'histoire waaw parce que en 1960 ba ñuy am suñu indépendance la moom am la nationalité sénégalaise mhm. parce que dafa bëggoon Sénégal mhm. mais nekkoon vétérinaire parce que foofu aussi je pense euh, dinañ interpeller un peu profil yi mhm. parce que vétérinaire la woon mais moom la ñu dénkoon suñu koom-koomu réew moo doon le premier ministre de l'économie et des finances euh, ci euh, gouvernement bi ñu samp ci Senghor donc mu nekk loo xam ni xëy na tey boo koy seet mën na choqué ñu bëri parce que quand même da nga naan mm. vétérinaire du woon un peu sa spécialité nekk mm. quand wàllu koom-koom gérer ay ministère de l'économie et des finances mais en 1964 ba mu amee trent 38 ans. Mhm. ci la feebar mu gaañu. Mhm. mais nag euh, Senghor rendre ko benn hommage boo xam ni ci la maison du devant la maison du gouvernement. Mhm. daal di ko tagg wax ko ni c'était son frère. c'était son ami un combattant de la liberté pour euh, l'indépendance des peuples africains. donc wax ko ay wax yu rafet ba niñ ko dippee ay avenue tey jii ñu ci mën ti daxaw jërëjëf merci beaucoup euh, Mokhtar naka noonu yaay Kumba ma fàttali ne suñu gan Bachir Diawara la teew na.